di wax ne suñu daje bi tey ngir ñu waxtaane euh, révision exceptionnelle list liste yi nga xam ne daanaka mën nañ jàpp ne bi mu tàmbalee fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ñu ngi daanaka ci cappaandaw gi ndax suba la war a jeex révision boobu nag liñ ci mën a wax mooy ci taxaw seetlu ci suñu taxawaay en tant que ñun acteur politique rawatina ci sous préfecture Grand Dakar bi ak ci commune Sicap Liberté bii ñu bokk lañ ci seetlu jëlee ko ci suñu ndaw yi nga xam ne ñoo ñu toogal ci commission administrative yi ak suñu responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi suba ngoon di dem di waxanteeg askan wi di leen ñaax di leen sensibiliser mooy def nañ opération bu mucc ayib moo xam ci wàllu organisation bi nga xam ne administration territoriale bi moo ko yore moo xam ci wàllu ñaax ak sensibiliser bi nga xam ne moo ñu war ñun jëmale ko ci askan wi ndax keroog bu élection jotee kenn ku nekk mën a indi sab kàddu ci doxalinu gox bi loolu nag rafetlu nañ ci ñun taxawaayu administration territoriale bi ndax xoqatal nañ leen xoqatal bu war a bu mënoon tax opération yi yàqu waaye defuñu ko dañu taxaw topp ci seen liggéey ndax citoyens yi ñëpp benn lañ te ñun acteur politiques yi dañu war a maanaam dépasser léegi bu élection jotee rek ñu jàpp ne war nañu mën a manipuler wala ñu wax naka sudul noonu lépp rek pour fexe noo amee nit ñi ànd ak yow élection li koy joxe mooy waxtaan ak nit ki bala nga wax doy ko convaincre ko benn ñaar mooy boo waxtaaneek moom ba pare nga fexe ñaax ko ba mu mën a dem voté ji loolu nag ñun responsable yi ñoo ko war a def travail de terrain la waaye du liggéey boo xam ne da ngay nekk ci ginnaaw téléphone wala na nga nekk ci ginnaaw leneen di sos di wax lu dul amul wala di junj loo xam ne ku ko dégg mën naa jaxase fekk loolu du réalité kon révision électorale yi ñun waa euh, coalition benn Bokk Yaakaar bu commune Sicap Liberté rafetlu nañ ci ni ci coalition bi taxawee ndax taxaw nañ ci fulla taxaw ci fayda def ci seen seen kéem kàttan ndax fi ñu jëm moo ñu ko jaral dañu dëgmal ay élection yoo xam ne dafa am solo ci li président Macky Sall namm def ci réew mi moo xam ci yamale gox-goxaat yi ci anam yi nga xam ne si wàllu capital humain bi la si wàllu territorialisation des politiques publiques mais loolu lépp lépp solo mooy jàmm ji nga xam ne moo wënd moo wënd moo laxas activité yooyu ñuy def kon tey lépp loo xam ne toll na ni dayo président Macky li mu yéenee askan bi suñu dayo toll na noonu fii si biir commune bi pour ñu mën ko taxawal gañe ko jox ko ndam bi te lépp nag dañ ko teg ci yoon ndax balaa nga respecter sénégalais yi da ngay respecter sa bopp ba pare te respecter sa bopp mooy yoon yi nga xam ne sa réew charte yi bind na ko tëral ko ñun ñëpp ñu ànd ci nga mën ko wormal te tey bu fekkee ni nit ñi dañuy junj loo xam ne amul dafa yomb torop nga taxaw ci presse bi rek di yuuxu Masamba sàcc na Masamba yëpp na ay électeurs jëlee na leen ndar loolu lañ ko war a bàyyi sant yàlla nag wala ndokk bi nga xamee ne sénégalais yi wane nañ ne ñoom ku ci ne tekk tamit bu bés ba jotee la nga war a def xam nga noo koy defee xam nga fan nga koy defee te xam nga ca kan nga koy jëmale ndax nag ñun ñëpp ku nekk yaa ngeek say bët yaa ngeek say xel yaa ngeeg sa nopp yaa ngeeg sa njaboot boo bëgg sàmm aar ko kon tey vraiment ñun li ñuy wax fii biir Euh, coalition bi mooy conférence des leaders yi xàllal nañ ñu yoon bi wax nañ ñu fan lañu ñu war a tegu ñun ñi ngi wax ne danañ ci tegu ak fulla danañ ci tegu ak fayda ndax dogu gi ñu bëgg te muy ndam li ñëw Benno Bokk Yaakaar Sicap dañ ko fas yéene boole ci natt wi nga xam ne mooy doon natt buy jëmmal di màggal vision wu président Macky te muy PSE bi donc maa ngi leen di sant di leen gërëm xëy na rek may fàttali ne lii may liir nii dama ko liir déclaration bi la ndax sama ay camarade ñoo bokk ak man gox bi wóolu jiital ma jox ma naa ko liir waaye kàddu yi ma wax responsable yépp a ngi ni point focaux yi rek a ñëw ak ñi mënul woona a ñëw ñun ñoo ko àndandoor wax ndax ñun ñoo àndandoor liggéey liggéey bi nga xam ne bi mu tàmbalee ba léegi ñi ngi koy def ñu def ko ak fulla def ko ak fayda di xaar nag ku ko tilimal ndax ñun dañu set wecc ku bëgg tilimal liggéey bi na nga indi li koy wane danañ ci def saabu fóot ko ba mu set wecc jërë ngeen jëf euh, sa laaj wi am na solo da nga ne euh, wax ji yëpp baax na liggéey bi yëpp baax na mais enjeu bi mooy candidature bi kan mooy jiite liste Benno Bokk Yaakaar muy ci suñu gox yi muy ci yeneen gox dëgg la loolu enjeu bu rëy la mais xam nga élection ay étape la tey boo xëccoo jiite liste te liggéey bi nga war a def en namon yëpp defoo ko du am sol moo tax ñun dañu jiital liggéey bi ñu war a def en tant qu'acteur politique ñu def ko loolu def nañ ko ba pare mais liggéey boobu du liggéeyu tey maanaam boo bëggee nekk candidat doo bàyyi ba élection bi jot nga ne candidat la candidat boo ko bëggee nekk danga koy jëf ay ati at ca gannaaw di ko doxee di ko waxe ba nit ñi nangul la ko kon tey li nga xam ne ñun taxaw nañ maanaam laaj ndax ministre Zahra Iyane Thiam la wax bu yàqu la ña nga nekk candidat ña nga nekk candidat bi ñu tàmbalee politique ñi ngi nekk candidat pour liggéeyal askan bi ñi ngi nekk candidat pour liggéeyal ko ca fam ñu soxlaa ca fam ko soobee ca fañ ñu ko laaje tey buñ ma jiitalee ma nekk candidat fii dama koy nangu buñ fi jiitalee keneen aussi dañ koy nangu ndax li ëpp solo mooy nañu gañe mais gañe boobu conférence des lider daf ci wax lu am solo dafa ne nañu xool réalité politique nañu xool li nga xam ne wóor na ne bu taxawee ñëpp dañuy àndandoor jàppale ko mu dem parce que aussi politique dafay jot ñu wax ne du question rapport de force politique yéwénante la gis nga bu ñu yéwénantewul du ñu dem te tey l'enjeu c'est pas d'être candidat l'enjeu c'est de préserver suñu réew enjeu bi tey du nekk candidat Benno Bokk Yaakaar enjeu bi mooy nañu fexe ba Sénégal am stabilité nañu fexe ba réew mi am jàmm nañu fexe ba jafe-jafe yi nga xam ne askan wi kenn ku nekk am na loo bëgg nguur gi fajalaat la ko ñu mën ko yeggal loolu nag lu mu laaj dinañ ko def bu fekkee dafa laaj ñu jiite liste bi taxaw xëccu ne ñoo koy jiite dañ koy def li nga xam ne seetlu nañ ko ci mooy bennoo am na ci déjà expérience liste parallèle moom mosul ñàkk ci wàllu élection toujours day am mais li nga xam ne wax dëgg yàlla seetlu nañ ko ci mooy 2014 am nañ ci déjà expérience boo xam ne du woon expérience bu bu neex ci wàllu surtout département Dakar kon tey lii ëpp solo mooy bennoo comme ni ko tàmm di defee nga xam ne saa événement majeur amee dina taxaw ci xel mu dal ci vraiment lucidité mu def les bons choix danañ continuer def loolu boolewaale si également yeneen rëq-rëq yi nga xam ne mënul ñàkk ci dund parce que booy dund di avancer faw de temps en temps nga faqastalu boo faqastaloo ba xool gis ne ci xeer la beneen yoon di nga gën a defaraat sa doxalin kon loolu aussi dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba nga xam ne su fekkee ne ñun ñëpp jàppandoor nañ ne Sénégal rek a ñu tax a jóg vraiment dinañ def sacrifice yi war te sacrifice yi war yaakaar naa ñu ak camarades yëpp xamandoor nañ ko conférence des leaders bi dogal yu mu ci joxe en bon militant discipliné ñu def ko mais li ëpp solo mooy travail terrain bi ñu continuer ko li ci des nag ñu continuer ci waxtaan ci concertation euh, su ko defee ñu xam nu ñuy nu nu nu ñuy euh, jàmmarloo weeg euh, difficulté yooyu yëpp nga xam ne ñëpp la concerné tey foo mënti dem acteur politique yaa ngi manifester seen ambition mais ca cappaandaw ga moom comme kenn rek kay dem danañu xool anam bi gën pour bu ñu demee ñun li ñu bëgg te mooy gagner largement ñu mën ko am